marché bi di wër li nga xam ne mooy liggéey te état bu Sénégal daanay taxaw temm ngir daal di koy lijjanti moom Pape Modou Fall ci yéen kaay gi di réew ko di jee nee na ànd ci kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi di Macky Sall daan na koy biral daan nañu nga xam ne maanaam ñoom la ñu financé wax lu toll si juróom benn fukk ak juróomi junni emploi yi nga xam ne wax nañ ne danañu ko daal di recruter daar daar ana fan la ñu lañ si gis yéen a gi di réew mi quotidien vox populi sud quotidien wax ci hôpitalub Linguère bi nga xam ne maanaam pédiatrie ba moo tàkk ba lu toll si ñeent ci ay liir ñàkk sa seen bakkan am na si ñaar ñoo xam ne jamono ji ñoo ngi ci diggante dund dee yéen kaay gi délibération nee na ñeenti xale yi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci tàkk gi nga xam ne hôpital bu Linguère tàkk na ko am na si ñaari seex yoo xam ne bis ba ñu waroon a génn ba léegi ni am na si ay yaay yoo xam ne teewuñu seeni doom maanaam bi ñu amee doom journal bi nee na maanaam climatiseur ba moo waral la nga xam ne mooy tàkk ba réew mi quotidien nee na jamono ji ubbi nañu seb enquête ba tey ci biir journal bi de la sa ñu xëy fekk fa Alioune Tine mu séq waxtaan wu yaatu ak journaliste laas yi wax na si dialogue politique bi nga xam ne jàpp na ne dialogue ba dimul ci nga dikkul mbay laar dafa paan wax na ci élection locale yi nga xam ne war ko koo amal wax na ci mbiri Ousmane Sonko nee na Sonko jamono ji maanaam dafa war a wuj ji ngir mbir mi leer li leer ba leer Mamadou Diop Decroix nee na Karim Wade nee na soxluwut ab amnistie nag maanaam ñu daal di koy attewaat ndax ba léegi ni dafa jàpp ne atte ba ñu ko attoon jaarul yoon te waruñu koo jaarale kër yi yéen kaay gi ko Quotidien ci xëlim ak a Samb nee na jàpp na ne Macky bu defee ab remaniement ñu bari dina tàqalikoo ak ñooma ndax bi manifestation yi amee ci réew mi ñu bari dañ na mes na menteñ mambay ñaa yëkkati na ay kàddu nee bëri na ñoo xamante ni ñoo ngi liggéey ak Macky Sall nekk ci gouvernement bi nekk ay ministre ay cuune laña maanaam ay nit ñu incompétent ba tey ci biir yéen ne ñooy coalition ñoo lànk ñoom nag daana yi ñu génn doon ko def sa jam ñaa joo dégg ni daal maanaam kaaw dëbu la Macky te nag Macky moom ci boppam moom mooy nday mbiliki maanaam mooy responsable la fukk ak juróomi nit ñi nga xam ne dee ci manifestation yi si amoon te jamono ji nag ci boppam dafa soxla li nga xam ne mooy ab thérapie psychologique ñun waa coalition ñoo lànk danañu informer opinion internationale bi na leen Macky Sall jamono ma ngi waajal yeneen crime ci réew ñoom coalition ñoo lànk ñoo bañ ñoom nag ñu jàpp mooy Macky Sall dafa wor xalif général des Mourides ndax la ko waxoon na dinaa fexe ba jàmm am génn ñu nekk ci kaso yi ba léegi ni amul lenn loo xam ne Macky Sall jëfe na ko si ndax am na lu toll ci fanweeri ndaw yoo xam ne ñoo ngi ci kaso yi yéene kaay gi délibération ñu koy fekk fa baax Tëlimin Dias moom nag nee na Macky Sall jamono ji maanaam dafay bëgg di xupaate ak di dànkaafuwaate ak di menacer askan wi waaye nag loolee du jàll Macky Sall nag na leer ne deuxième vague du am ndax li fi am bu fi amaatee Macky Sall fa lay jóge nag moo ko bu ab régime ci réew mi ba tey ci biir journal bi moom baax Tëlimin Dias sa nee na conseil présidentiel bi nga xam ne doon nañu ko amal loolee escroquerie la maanaam bëccëgul dara kam ci ay tappale la Macky Sall nekkoon dañuy nettali kàddu yi Barthélémy Dias la yéene kaay gi di Walf Fadjri nee na école de police am na benn élève boo xam ne ñàkk na fa bakkanam ci anam boo xam ne bu doy waar a doy waar la yéene kaay gi di Le Quotidien nee na benn at bi li nga xam ne maanaam mooy viol waaye nag ba léegi siif gi ma bu Sénégal jox na Senelec lu toll ci quatre-vingt-dix-neuf milliards yéen kaay gi de la Soleil nee lu jëm nag ci prix électricité bi mu bañ a yokk loolee tax na état bu jël na lu toll ci trois cent ko ñi ne ñooy waa Senelec yéen kaay gi de sat xibaar naan ñu Atlético Bilbao daf ko gagné ñaari bal ci benn Real Madrid dafa témbo zéro zéro Barcelone gagné Villarreal ñaari bal ci benn jamono ji stade yéen kaay nee na championnat bi Espagne maanaam mbir mi tar na lool ndax Atlético soixante-treize